asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax tey jital ci néew beeg siyaar bi im Mountakha ibnu ba Bassirou Mbacké di ñaan suñu borom mu yàgg fi lool te ànd ak wér naka noonu Serigne Cheikh Jëmb faal di ñaan Serigne Sidi Mokhtar suñu borom yokki te taf ñu ci barkeem ci barkeb Serigne Touba bu ngeen gisee taxawaay bi ñuy wër ci li nga xam ne mooy Touba Argentine ak li ko wër lan moo ko waral mooy kër Serigne Touba gi nga xam ne fàggu nañ ko fi muy pàkkub Serigne Touba ñuy wër ci Sénégalais ana lan moo ci seen yëg géeg ak daje bi nga xam ne war nañ ko daje la 4 avril kon mbokk yi duma def lu dul dox rek dajeeg sénégalais yi di leen laaj ana lan mooy seen yëg-yëg ak lan lañ yëg ci kër Sëñ gi fii kon nag waa xam nga lu waral ñu tàllal la suñu micro mooy kër Serigne Touba gi nga xam ne mbokki taalibe yi nekk fii euh, muy jullit yi ak murit yi fàggu nañ ko fas yéene ko def kër Serigne Touba te pàkk kese la di ci woo mboolem mbokki taalibe yi war a daje euh, la 4 avril loolu ana lan moo ci sa yëg ak lan ngay lan ngay soññ murit yi bu boobaa. waaw sang bi sëriñ Assane ñu ngi siyaare bu baax di am mbégte ci loolu ak laaj bi nga laaj nekk loo xay lu ñu rafetlu la di ci kontaan loolu nag ndax euh, fii ci Touba Argentine bu ñu fi amee loo xam ne lu ñu yàgg a wër la yàgg ko wut yàgg ko yéene muy kër sëriñ Touba euh, ngeen di ci dox di ci wax ba suñu borom dogal ñu am pàkk bi kon bu ngeen jógee di dem ci bokk taalibe yi ngir sàkku luñ ko defaree loolu duñ def lu di ko rafetlu di ñaan nag mbooleem foo xam ni taalibe nga fa rek taalibe sëriñ di jullit ak ku mën a doon la nekk fii ci Touba Argentine nga bay ci sa waar ndax nekk na loo xay lu am solo la dëkk bi yàgg nañu fi waaye lu mel noonu yàgg nañ di ko wut mu nekk lu xawoon mel ni lu jafe kon bu ñu ba suñu borom jàppandal ko ñu am ko fi kon bépp bi boo xam ne yaa ngi ci Touba Argentine di dégg loolu war ngaa mën a bay sa waar ci loolu nga xay mooy defar kër sëñ bi kon loolu sëñ Assane ñu ngi ciy sant di soñ bépp bi ak fu mu mën a ne. li nga xay moom lañ ci e, laaj mu toll ci 2000 peso ba lu ko ëpp képp koo xay dégg nga woote bi foo ma mën a ne nga ñëw bay ci sawaar loolu dañ koy sant di ko gërëm te xam ne yokkute rek lañ ciy jëlee ndax Serigne Touba amul tànk gannaaw yu kanam la am te Serigne Touba ñimiwul bor dafa amuk pay ku ko lebal ker mu fayale guddi kon loolu sëñ Assane yaakaar ne dinañ ci am mbégte dinañ ci am kontaante te bu neexee suñu borom yaakaar naa yi du yàgg lépp dina sotti. bu ngeen gisee ki ñu taxawal ab baay faal la ah, ñu fas yéene ko nuyu rek laaj ko li nga xam ne moo jëm ci kër sëñ Tuubaa gi nga xam ne taxawal nañ ko fii ah, di ci laaj ana nan la ci njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall taxawee góor yàlla ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi siyaar bu wër Baye Jawrin ñu ngi siyaar bu wër ñu siyaar mbokki taalibe yëpp waaw ngi siyaar bu wër waaw kon kër sëñ Tuubaa gi nga xam ne murit yi taxawal nañ ko fii maanaam fas yéene def benn AG boo xam ne ñu ngi koy def la 4 avril bi nga xam ne moom lañ dëgmal ana lan moo ci sa yëg-yëg. waaw da ci gis suñ bopp rek da ci gis suñ bopp rek di santaat bu wër sëriñ bi di wax jërëjëf sëriñ Touba waaw ba ñu sëriñ bi andee fii dogal ñu ñëw fii maanaam ñu koy liggéeyal ba sampal ko daara yoon la tamit. mbokki taalibe yëpp wane ci seen pasteef wane ci seen yéene wane ci seen fulla ak fayda ndax lu ñu def ci kër sëñ Tuubaa gi ñun la war rawatina ñun waa kan maam Cheikh Ibra Fall waaw waaw dañ koy rafetlu lool di wax ne ñun moom ñu ngi seen ginnaaw foo ñu woo luñ ci am suñ doole suñu yéene ak mbokki taalibe yëpp kuñ mën a gis mu joxe sa addiya ñu jëmal kër sëñ Tuubaa gi taxawal ko ba mu mat ñu fay liggéeyal Serigne Touba ak maam Cheikh Ibra Fall waaw ma dikkaat ci kër Serigne Touba gi man amali saalihan fali nafsi yàlla du jël jëfi kenn faye ko kenn lépp lu waay Sëriñ Tuubaa moom géej la rek mi ngi mel ni biteel ab lem boo xam ne nii dangay jël sa baaraam di dugal ci biir loo gën a jiñ muy gën a tooj taq saf gone yi nañu ànd bu yar Sëriñ Tuubaa nag moom defar nañu raw na teg kenn dootu mel ni moom te moom rek moo fi nekk nag lu ci waay mën a def itam di ko gis jàkkaarloog suñu magu taalibe fekk ko ci restaurant bi muy ndekki ah muy magum taalibe moo xam ne jarut ñi leen koy présenté Argentine gépp xam nañ ko ci liggéeyub Serigne Touba gi ñu gën ko xam ci paate grand paate ñu ngi lay ziar. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokki taalibe yi asalaamaaleykum mbokki waa Argentine asalaamaaleykum yéen waa mbokki Touba TV ñu leen di ziar baax leen nuyu. waaw Savagra xam nga lu waral ñu tàllal la tey suñu micro mooy liggéeyub Serigne Touba bi nga xam ne njabootuk sëriñ Touba gi sekk nañ ko fii ci Touba Argentine ba taxawal kër sëriñ Touba kër sëriñ Touba googee ana lan nga ci yëg. bëgg rek kontaan lool kontaan lool ndax man euh, daanaka léegi def naa douze ans fii ci dëkk bi waaye wallaahi biñ fi ñëwee ba léegi ñu ngi doon wax waxi kër Serigne Touba waaye dem bi ñu yëgee ne gars yi taxaw nañ bokk taal yi bokk nañu àndandoo booloo. ba taxawal fédération bi ba taxawal kër Sëñ Touba jënd ab terrain ñu ne Sëñ Touba moom terrain bi sama xol da sedd guy guy wax dëggante yàlla sama xol sedd na ci loolu wax dëggante yàlla ci loolu daal taxawaay boobu nga xam ne moom yi ah, dimbali ñu ba yeneen yi nga xam ne moo ci des rek ñu matale ko maanaam génne addiya joxe ko ba mën ko taxawal ba defal ko ni nga xam moom lañ ko bëgg rek ba ñu xam ne ñun am nañ kër Sëñ Touba fii ci Argentine moom daal bëgg naa ci loolu kontaan naa ci loolu wax dëggante yàlla waaw deux mille pesos yi nga xam ne sas nañ ko euh, sase nañ ko benn murit bu nekk euh, nga war ko joxe muy tegu xeer gi njëkk ci kër sëñ tuwaa gi ñu war koo commencé kër sëñ tuwaa gi ana lan ngay wax mbokki taalibe yi ci 2000 pesos yooyu nan lañ ci war a taxawee wala lu ko ëpp. maanaam jaaju rek jaaju rek jaaju rek dama leen dégg seen njaareem fañ nekkoon sama baay daana dégg muy wax ne maanaam euh, ca kër Cheikh daana wax ne maanaam sëñ bi bu la sasee da ngay def ba ñaras ko ba sëñ bu la sasee doo ko jox yem ca ko jox dolliwaat ko. loolu nag euh, su amee maanaam que Sëñ Tuubaa li nga xam moom la sax muy demi daanaka boo xoolee du nekkul du dara la dara gars dañoo baax rek defe noonu ak yërëm jaam ñi ak dëkk bi ni mu demee yërëm jaam ñi defe ko noonu fexe ba li fi nekk ci ay Sénégal li fi nekk ay doomi jullit li fi nekk ci ay taalibe na ñëpp fexe ba accomplir loolu ba joxe sas yooyu nga xam ne mooy demi peso yi ñu commencé ko kër Sëriñ Tuubaa gi taxawal ko mu sotteeg jàmm ñu jël caabi jébbal ko Sëriñ Tuubaa tànki ngeen di dox muy Eh, soññ mbokki taalibe yi ci lu jëm ci liggéey sëñ Tuubaa nga xam ne dama yax ni ñun ñu nekk ci àll bi bokk na ci lu ñuy aar mooy dem daayira dem daayira nag réew Tuubaa bi ku ne xam ne ni ñëw fa am fa màkkan moo xam ne yaa ko moomal sa bopp di fa daayira jafe na ba tax na suñu wutee kër ba ni tiitale ko ne sëñ Tuubaa moo ko moom te taalibe sëñ Tuubaa yi ñoo koy jaayante kon nag loolu moom yaakaar naa ne ndimbalu sëñ Tuubaa la te dama wax ni pàkk rek lañu ñu kër kër gi amagut te kër gi yaakaar naa liñ def ba wut pàkk bi noonu la ñuy defaat rek ba jaayante ko kon nag woote bi ngeen ciy wootee képp ku di taalibe waxuma ab taalibe waaye képp ku di jullit war ngaa mën a dagg si yitte ñëw ca mbooloo moom a fexe fekk ñoo bi te incha allahu rabbi itam lépp lu nu ci laaj ci sas maanaam waroo nangu maanaam kenn mën la ca ndax ku sañoon tey bu sëñ Tuubaa di séddale kenn du la pële te sëñ Tuubaa moom ñi mawul bor waaye am fay te yaakaar naa ak payam moom yemul rek ci sénégalais bi dafa dem ba ci nasaraan si kon nag loolu moom ñoo ngi ñaan suñu tubaab ñu ci ak jàmm te di ñaan maanaam lépp lu luñ ci bëgg rek suñu tubaab defal na jur kawe suñu jor ci barke Seexul Xaddim amin yaa rabal alamin waa 2000 pesos yi jàppaloo ne dafa tuuti ndax mi ngi toll ci 50 mille ci bopp bu bopp bu nekk 2000 pesos yi tuuti na wala tuutiwul waaw euh, mën nañ ne tuuti na ndax maanaam taalibe yi moom lu jox suñ tubaa nañ ko mën nañ ne tuutiwul ndax Serigne Saliou Mbacke dafa waxoon ne addiya de bu ko borom xeebee rek nangu nañ ko te yaakaar naa ne yow mii di wax sax naan tuuti na xëj na yëg-yëg bi nga am moo tax ndax ab murit dafa jàpp ne lépp lu mu jox Serigne Touba loola tuuti na ndax ni ma koy waxee ak màggal fi la gars yi di natt seen bopp Serigne Touba doo ko jox aw des danga koy jox lépp loolu nag aw déggin la ndax jël sa lépp jox ko jox ko nit maanaam neexul neexul a xel waaye ki ñuy jox du nit muy Serigne Touba ndax euh, du jëf-jëfi nit te yaakaar naa day jël nit teg ko foo xaye si nii euh, doomu aadama yëpp dana leen yéem te loola fekk ne asaa asaa la dong soo ko liggéeyal sa dund ndax damay wax ne ñun li nu waroon tey mooy suñu bis yëpp ñu jël ko di ko liggéey Sëñ Tuubaa waaye gis nga daf noo suturaal ñu ne ci suñu yëfi bopp nga xam ne ay tooli àllarba la daan sas mag ñi tey ñun ñu waroon tooli àllarba yooyu ñu koy def waaye mu mu mu sant ñun ne dem leen ngeen liggéey ñuy liggéey bu daayira jotee ñuy dajaloo kon bis yi ñuy jël ak temps yi ñuy jël di ko liggéey Sëñ Tuubaa loola waxuma la 2000 peso waaye doonoo waroon sunu capital yëpp ñu def ko ci kër Sëñ Tuubaa gi. te xam ne lii nii wax dëgg yàlla dañ ko saxaw a yeex def. waaw c'est que mbir Sëñ Tuubaa moom moom tànki kanam la amul tànki ginnaaw kon lu ci jublu rek ak lu man doon rek ñu def ko Pastef te itam rafetlu ko baax a baax daal te mbokk taalibe yëpp itam wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñu bokk kenn ku ne def ba def loo xam ne si mënoo ko ndax sas sax jëruñu naan dañuy dañuy sas kii dañuy sas kii de dañu war def ba def loo xam ne mënuñu ko. man de pare na pour joxe bu doon 5000 pesos pare naa pour joxe ko barke Serigne Touba parce que moom moo ñu fi bàyyi Serigne Touba kenn du moom waaw. wax dëgg yàlla ndax loolu mooy loolu mooy ak ak ak ak euh, suñu àll ji wax dëgg yàlla ndax ñun ñëpp gannaaw suñu borom tey bu dee bu nekk dëkki Touba bi tey tey nekk di def lu ñu neex tey fi nekk nii lépp gannaaw suñu borom xoolal euh, Serigne Touba la. kon dèjà comme dem war ko defal ak këram fii nii ci ak Touba Argentine dañ koy gën a sant suñu borom te ñaanal suñu borom àggale ko jàmm salaam barkeeb jëm jëm ki tax ñu koy def loolu laaj ci laaj laaj maa ko war bu baax a baax itam wax dëgg yàlla. murid kàddu yi rafet na loolu wax dëgg yàlla te it eh, neex naa dégg waaye 2000 pesos yi nga xam ne sase nañ ko muy toll ci 50 000 CFA ndax ci gis-gis maanaam dafa tuut daal wala moom baax na noonu loolu daal la ñuy sàkku rek nga leeral ngir mbokki taalibe yëpp mën koo joxe te xam ne maanaam cinquante mille képp koo xam ne ñu ngi la ciy woo ci liggéeyub Serigne Touba bi maanaam pour teg xeeru kër Serigne Touba commencé ko muy cinquante mille ndax loolu tuutiwut ci boppu murid tuuti na Baye Fall euh, tuuti na tuutiwul ndax xam nga jamono ci dafa xaw a sensé ak fi nekk itam ndax am na ñoo xam am ñoo xam si ne ko waaye wax dëgg yàlla dëgg dañ ko jaayante ndax wax dëgg yàlla ay jàmbar ngi te yéen ngi bay waar wi wax dëgg yàlla yéen moom ñu ñu soññ saa nekk ñun moom dañoo xaw ñàkku taalibi waaye ay taalibi ngeen ñun moom wax dëgg yàlla moom ñoo ngi seen ginnaaw man de maa ngi seen ginnaaw ndax da ngeen baax faal njaga li nga ñu fàttali dafa neex li nga sas itam dafa nekk loo xam ne moom dañ ciy kontaan bu a baax di ci am mbégte itam ndax yoon suñu am dama la rek moom daal kanam rek du jëm ginnaaw léegi moom bu fekkee te ne gars yi ko yokk ñi ko man ñu yokk ñi ko mën di dafa 2000 wax dëgg yàlla moom moom moom incha allah gaar ko bu sooba yàlla moom waaw rafet naa ko trop wax dëgg yàlla moom jërëjëf bëgg nañ lool ci kàddu yi xam ne yëkkati nga ko kon nag ñu jàll ci suñ mbokku taalibi bi rek góor ngi lay xam nga lu waral ñu tàllal la suñu micro mooy kër Serigne Touba gi nga xam ne mbokki taalibe yi fàggu nañ ko fii ñu doon ci laaj ñi nga xam ne ñooy mbokki taalibe yi ana lan moo ciy seen xel ak seen xalaat ak AG bi nga xam ne taxawal nañ ko la 4 avril bi fii ci hôtel Bawane mbokki taalibe yëpp war koo teewee. waaw du ma def lu rafetlu ko parce que murid laa comme ñëpp te Serigne tubaa amul tànk ginnaaw tànkam la te maa ngi dégg say question sax sànq nga ni 2000 pesos est-ce wala tuddul man par rapport nag ak jamono ñu demee nii quoi mais nag jàpp naa ne Sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw quoi tànkam la am man de wax dëgg yàlla moom ndaw la te dama liggéey Sëñ Tuubaa rek moom a ñor lépp loo xam daal ñu ngi si man wax dëgg yàlla naa def li nga xam ne moom laa man